doon amal ab sit ci kanamu ministère de la santé et de l'action sociale ngir ñëpp mën a jot seen i joytu mujj ñu ko amal nag ndax takk der ñoo leen aaye ñu daje ca boobule barab taskatu xabaar itam ñu daal leen aaye ngir ñu filmer. liggéeykatu centre bi daal di mer ba futu mujjee taxaw ne dañ koy amal. ñu téye ay pancarte ci seen loxo ñuy naqarlu condition yi nga xamante ne moom la ñu liggéeyee ci ay vidéo yi nga xamante ne ñoom ñoo ko filmeel seeni bopp ñu yónnee ñu ko ca yooyu la vidéo nag ñuy gis tegum loxo ñenn ñi. juróom benn ci suñu collègue ñu jël daal leen embarqué. niñ ko bëggee woon yëf yi demeewul noonu. teewul nag ñu ne dinañ amal seen kéemtalaay kàttan ba li ñu bëgg daal di ciy jot. dinañ fi ñëw chaque jour ba ñu bàyyi suñuy collègues mais aussi dinañ fi ñëw chaque jour ba ñu régler suñu problème. du benn du ñaar ñu daal di yónnee ay kaayit wala sax daal di doxantu ci barab boobee loole nag waral ñu daal di fi teew naam nag amuñu benn autorisation. ay 19 mois sans motivation 3 mois sans salaire plusieurs sont restés si diggante tabaski ak korité yi génn sans am. lu ñuy mën a jëndee xar wala am na ñoo xam ne instant yi nii génnee nañ leen ci seen i kër parce que amuñu lu ñu fayee weer bu dee ñenn ñi euh, seen i doom mënatuñu dem jàngi parce que amuñu luñ leen di fayee loolu yëpp benn nit moo ñu ko teg muy la directeur. kiñ ci yàgg joxuñ baarama tuuma nag du kenn ku dul directeur bu boobu boobule institut public d'éducation et de réhabilitation ngir gone yi nga xamante ni dañoo amee laago jéem nañ koo jéem a jot wante furaas